Birahim Seck maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. alors ngay coordonnateur u euh, forum civil ñu gis ne njiitu réew mi jot naa nag digal ngir ñu fësal lii di rapport u corps de contrôle yi jëm rek ci li nga xam te ne mooy juróomi at yi mujj euh, lan ban jàngat nga ci am nan nga ko gisee. mu nekk loo xam ne forum civil daf koy euh, rafetlu parce que ay at a ngi nii forum civil di def plaidoyer pour que gouvernement du Sénégal publier li ñu wax. Euh, les rapports des différents corps de contrôle yàgg na ko def le président gouvernement président Macky Sall bañ ne duñ ko duñ ko def donc tey jii nii bu fekkente ne le président Diomaye Faye ñëw na pour jëmal ko duñu def lu rafet rafetlu ko di wax ne def na lu ko war def na lu ko loi wax def na li nga xam ne moom mooy réconcilier maanaam boole euh, Sénégalais yi ak euh, réduction des comptes maanaam ku ñu dénk alal réew mi na ñëw wax naka nañ ko naka nañ ko gérer donc bu fekkente ne moom ñoo na ko def en tant que président de la République duñ def également lu dul euh, euh, di ko di ko di ko di ko kañ di ko jaajëfal pour mu gën a continuer ci yoon boobu noonu ndaxte kuy woote jub di woote jubal di woote jubal jubanti mënoo ñàkk def lu dul euh, continuer ci voie bi maanaam fexe ba alal réew mi nga koy nga wax également sénégalais naka nañ koy naka lañ koy gérer donc def na ko également ci rapport yi nga xam ne nee na dina ko def ci rapport yi nga xam ne moom la nguur gi passé également euh, euh, doon gérer moom tamit euh, ci gestion am ngi xaar également à chaque fois la loi exige ko ñu publier rapport yi ñu def ko ci bu mu bu mu jotee. alors li jëm yi tamit ci li nga xamante ne mooy wàllum bonne gouvernance ban jàngat nga ci am rawatina li nga xamante ne yàgg nañ ko woote muy gouvernance vertueuse lan mooy ci sa appréciation réellement. waaw gouvernance vertueuse da nga koy tekk li ma wax sànq ñoom ñu wax ko mooy jub ñoom nee jubal jubanti ak jubal wala jub jubal ak jubal jubanti loolu nag li ko mën a jëmmal mooy fexe ba nga xam ne corps de contrôle yi ñu mën def seen liggéey de façon indépendante parce que Sénégal daanaka lépp lu instrument de gouvernance am na fi mm-hmm. am nañu inspection interne am nañu parquet national financier am nañu le pôle judiciaire financier am nañ OFNAC am nañ un instrument boo xam ne dafay exiger ngeen autorisé ñu def seen déclaration patrimoine am nañ am nañ am nañ am nañ am nañ donc li ñu gën a soxla nii mooy leadership maanaam nguur go euh, euh, euh, njiit boo xam ne njiit buy jubal la njiit boo xam ne njiit bu jub la njiit boo xam ne njiit buy jubbanti la waaye njiit boo xam ne également buy déglu la ak njiit boo xam ne dina mën a taataan soxla askan wi di ci dox guddi di ci dox bëccëg mhm. donc loolu bu amee daanaka mën a jàpp ne bonne gouvernance mënu nekk euh, Sénégal réalité mais ku nekk respecté pouvoir am assemblée nationale jox ko pouvoir am justice bi jox ko pouvoir am exécutif bi également jox ko hmm. alors reddition des euh, comptes oui waaye chasse des sorcières mu mel ni daal euh, jotuñu koo gis. wa man li ma jàpp mooy bu rapport yi génnee képp koo xam ne da nga gérer alal réew ci lu mu waree ñu waneel joxe joxe la comme exemple daan nekkat xale Sénégal kii kat dénk nañ ko alal réew mi ci nombre yi at euh, yor na yor na alal réew mi nu mu ko war a yoree yorin bu rafet waaye képp koo xam ne jox nañu alal réew mi nga yar ko yor na yoru safaan la maanaam nga def faute de gestion wala nga def faute pénale je pense que nañ la bàyyi ak corps de contrôle yi ñu def seen liggéey ak nu mu waree ci kenn bañ cee dugg mu bañ am benn interférence mu bañ a am benn benn pression extérieure je pense que nguur gu bëgg jubal bëgg jubanti bëgg jub noonu lay doxee. alors li jëm yi tamit ci wàllum geer gi mu mel ni bokk na ci li nga xamante ni taxaw na ci ngir war koo mën a xeex. loolu duñ jox rek lu dul euh, jox yóbbal gouvernement du Sénégal na ko déjà am na loi boo xam ne mu réformé na OFNAC jox na ko ay pouvoir yom euh, état moo ci des pour jox ko ay moyens état moo ko des pour jox ko xaalis bi mu liggéeyee état moo ci des pour jox ko nit bi mu liggéeyee état moo ci jox ko matériel bi mu am na instrument de prévention muy la loi sur la déclaration de patrimoine état moo ci des ñu sax le président de la République moo ci des daal premier ministre ses ministres ses directeurs ses chefs de service ses chefs de projet ses chefs de programme ñii war nañ déclaration de patrimoine comme ni ko loi bu février deux mille vingt donc képp koo xam ne a liggéey corruption xeex corruption je pense que le gouvernement am na pratiquement tous les moyens nécessaires pour xeex corruption fi mu nekk nii donc li leadership mooy kilifa gu kilifa kilifa gu taxawaay taxawaayu taxawaay la kilifa kilifa gu uuf njaboot kilifa guy eh, eh, eh, sàmm alal réew mi ak kilifa guy xeex taxaw ci développement loolu la réew mi nekk ñu soxla. Mhm. li jëm ci wàllum répression euh, pénale yi tamit ñu gis ne euh, bokk na ci fraude fiscale yi nga xam te ne boobu ba tey ñoo ngi koy lam-laamee muy euh, flux financier illicite bi. xeex flux financier illicite ci ñetti pàccam maanaam xeex corruption xeex lu ñuy wax plus transfert xeex lañu wax ay criminalité économique et financière loolu dafa nekk loo xam ne lu jaadu la surtout jamono joo xam ne état bi dafa taxaw ne dafa bëgg a développer Sénégal ci alalu boppam maanaam feex ba nga xam ne dañ def une mobilisation des ressources domestiques loolu nag boo ko bëggee il faut nga xeex lépp loo xam ne évasion fiscale la il faut nga xeex lépp loo xam ne fraude fiscale la il faut nga xeex lépp loo xam ne c'est des remises fiscales injustes il faut xeex lépp loo xam ne dañuy rawale alal réew mi ci wàllu plus de transfert il faut nga xeex lépp loo xam ne criminalité économique la maanaam détournement vol euh, euh, ak yeneen ak yeneen ak yeneen il faut nga xeex également lu ñuy wax corruption donc gouvernement nag bu jóg ne dafay xeex loolu te forum civil yàgg taxaw ne flux financier illicite nekk loo xam ne lu lu bon la baaxut alal réew gouvernement boobu lu ñu def rek di ko jaajëfal di ko te xam ne tegul ci yoon bi te foofu mooy yoonu euh, bonne gouvernance foofu mooy yoonu transparence foofu mooy yoonu jub jubanti. alors ban jàngat nga am yi tamit ci li nga xamante ne moo jëm ci protéger euh, protéger ñi nga xamante ne ñooy lanceur d'alerte yi euh, muy rek xeex goo xam dinañ ko defi tamit ci blanchiment de capitaux yi. Ah, daanaka ay année 2016 ak li ko topp forum civil déjà commencé woon na liggéey ci loi sur les lanceurs d'alerte waaye di wax ne bu ñu loi sur lanceur d'alerte dafa nekk loo xam ne lu complété la waaye dafa am ay préalable préalable mooy fi ñu woowee gouvernement bi mooy. il faut que ñu am une loi sur l' à l' loolu benn préalable la deuxième préalable mooy ni ko le président Diomaye Faye digalee demb maanaam redevabilité il faut que redevabilité bi mu continuer il faut que rapport yi di continuer di génn ba nga xam ne popul situation population bi dañu mën a accéder à l' information ñaari préalable yii bu amee moom mooy compléter la loi sur les lanceurs d' alerte mais di dolli ne le code de des finances publiques nee na ci article sept am ne nag bépp fonctionnaire ak foo mën a nekk saay boo euh, euh, yëgee ne am na ko bëgg a njuut njaaj am na ku bëgg a euh, détourner alal réew mi am na ko bëgg a naax saxyal alal am nga droit wu dem dénoncer ko devant le juge lii la code de transparence de la gestion des finances lu wax donc lancer d'alerte waaw baax na waaye am na lu ko jiitu mooy am une loi sur l'information ñu ñu ñu rendre effectif gën a dëggal redevabilité bi gën a encadré article sept point trois foofu lay woowee gouvernement bi nañ encadré ba nga xam ne kii dénoncé devant le juge naka lay dénoncé naka lañ koy protégé donc bu ko defee nag après daal di seet nag nag la ñu amee une loi boo xam ne c'est sur l'entrée d'alerte waaye l'entrée d'alerte bokk nag délation sénégalais gis naa ñu bëri di génn ay vidéo naan lii diw moo ko moom lii diw moo ko moom nañ moytu loolu parce que loolu mën na leen andil ay procès pour diffamation mm-hmm. balaa ngay dara teg sa loxo ba xam ne kat lii kii lii moo ko def. Mhm. balaa ngay wax naan diw moom moom lii di ko accuser di yàq deram parce que am na njaboot attention mën na yóbbu beaucoup de sénégalais devant le juge pour diffamation alors yenn mesures yu urgente la ñu war a mën a jël yi tamit ngir mën a taxaw ci xeex gi nga xam te ne bëgg nañ ko def ci kaw ger gi. alors pour euh, euh, xeex corruption ñaari fànn la ba ñett benn mooy wàllu prévention benn mooy wàllu répression. benn mooy peut-être développer ay coopération la assistance bu dee wàllu prévention wax naa ko sànq loi sur la déclaration de patrimoine bokk na ci également am une loi sur l'accès à l'information bokk ci également fexe ba nga xam ne redevabilité le nekk loo xam ne lu lu am la lu leer la donc junj naa ko beneen pàcc mooy juridiction yi def seen liggéey nu mu waree corps de contrôle yi def seen liggéey nu mu waree euh, en place le parquet national financier mettre en place de façon globale lu ñuy wax le pôle judiciaire financier. alors fi mu toll nii tamit ban jàngat nga am rek ci euh, composition gouvernement gu yees gi nga xam te ne war nañ taxaw nag euh, ci euh, digle yi nga xam ne jot nañ ko def. waaw souvent nag du ma bëgg di wax ci nit directement tant que gisuma wala ma xamuma li mu def donc liñ jortagum liñ jortagum mooy équipe bi ñu ni nii baaxagum na liñ jortagum baaxagum na waaye nag pour ñu ko dëggal il ñu fekk ci terrain bi. ba xam exactement li ñuy liggéey lan la su boobaa dinañ a joxe suñu appréciation bu objectif mais euh, du ñu bëgg daal di wax ci nit directement. en tout cas Birahim Seck jërëjëf may fàttali rek ne yow yaay coordonnateur u Forum Civil ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa lay jaajëfal jërëjëf.